ñaari kàddu yi ma bëgg nañu wax de yàlla nga yëkkati ndax jamono ji ren ni mu mel li dee ci géej gi ren kenn xamul nu mu ci ay góor ak jigéen tawat ji tamit ñëw fi barki démb li Sénégal jànkonteel ci fitna yaakaar naa ne eh, yaa mag fuuf te xam naa ne ba nga fi dalee kii ba léegi gisoo ko yooyu nag lan nga ciy wax nit ñi delloo seen xel. te boo seetloo yëpp rek mbiru àdduna la loolu lan nga ciy wax. Euh, sëñ Saleh euh, dañuy rek am euh, tiis ak metit ci loolu nga xam ne moom nga wax ñooñu xataraayu walanteeru ne dañuy génn senegal dem bitim réew xaj na defin wi moom la ñuy wax. waaye nag bëgg bëgg teraanga ak tekki bëgg tekki ak ak ak bëgg teraanga di faj di faj gàcce di dagg buumi gàcce asgor asgor su ne moom lay sàkku liggéey ci jaamu yàlla la bokk Sëñ Tuubaa danaan santaane liggéey di ci soññee di wax ne liggéey ci jaamu yàlla la bokk alxuraan foo dem ci alxuraan gis suñ borom di santaane liggéey di ci soññee fa isa farata fansab soo jaamu yàlla ba noppi na nga dem sonni kon euh, ak famshu fi manakibiha wa kulu min yi wa ilayhi nushur kon di wuti loo am Sëñ Tuubaa nee na xoli xuliqal badan xiinama futir li kasratul xidmati fi maa qad umir yàlla ba muy sàkk jëmm dafa bëgg muy kër kër di yëngatu ci li yàlla santaane moo tax euh, ndaw ñi suñuy doom ak suñu suñuy jarbaat di génn senegal dem bitim réew di sàkku ji luñ mën a faje gàcce waye nak euh, defeen wi taxna mbolo dal ci ciy faatu te di sakku teranga ba bakkan far ca euh kon euh, jaratu ko jaratu ko ndax li ngay wut bu ci sa dess won do do do ko jar ndax teranga jo xamni do ko fekke euh, kon da naka kon li ko conseillé li lai laajee biir suñuy ak suñu jarbat mo ñu xam yalla mi ngi fep ku dem dem bu jaar ci yoon mo gën ku mënta dem dem bi jaar ci yoon it na nga seet dem ba nga xam ne moo moo dal dal na xel dem ba nga xam dana dal xel say bokk dal xel say waajur dal sam xel waaye loo xam ne boo ci duggee sabkat mën na caa des euh, nañ ko nañ ko gën a moytu ndax li ci dee kenn xamul nu mu toll dañuy xayma rek naan nangam ak nang waaye li ci faatu kenn xamul nu mu toll waaw kon yàlla yàlla yërëm ñi nga xam ñoo faatu euh, te itam euh, lu baax rek moo leen tax a jóg Euh, xewal rek lañ doon sàkku ji gone nag faaw faaw doon am xelum xelum gone ak ndaw ak ndaw su nekkee ci yow euh, gaynde sax soo jàkkaarloo moom da nga ñemee jàkkaarloo ak moom loolu moo tax waaye ñu ngi ñaan yàlla euh, tàbbaleen àjjana ji na kawe te wuutu leen wuutu leen ci seen seen seeni waajur ak seeni bokk lii xew tam barki démb ci fan yi itam Euh, as gor nag dafa dafa dafa dafa war a bañ bañ moom bu jotee as gor dafa war a bañ ndaxte xadis ba wax na ne man qutila duuna maalihi fa huwa shahid wa man qutila duuna irdihi fa huwa shahid képp koo xam ne dañoo bëgg a saax saaxee sa alal nga bañ ba faatu ca euh, sun borom du topp dara ki képp koo xam ne tam dañoo nar a sàgge sa sakk nga bañ ba faatu ca euh, kooku tam dafa shahid kon bañ moom ab jullit da ko war a def walilaahi al izzatu wali rasulihi walil muminin waaye nag bañ gi nag li ci rax moom moom la ñëpp di naqarlo ndax euh, ku gaari otoom ci buntu këram ñu ñëw toj oto ba wala ab taximaan buy daw di daan dooleem yore njaboot nga taal otoom wala kër goo xam ne boroom yoonam ñëw ci nga taal kër ga wala pharmacie boo xam dañ fay jaay ay garab malade yi di ko fajoo nga dem saal pharmacie ba wala ab tëli boo xam ne ñëpp fay jaar <clears throat> président dana fa jaar dëgg la waaye euh, doomi réew mi ka gën a euh, fegge sax dafay jaar kilifa diine dañ fay jaar am na yoo xam ne dañu yore pikk di ko toj ngir rek seen naqar di ci yàq alali jàmbur euh, ak ay bakkan di ci des kon mboolem koo xam ne kii def nga loolu wàcc nga wàcc nga yoon kon ñi nga xam ne ñooy force de l'ordre yi nga xam ne dañoo tiire ay bal ray ay bakkan wàcc nañ yoon waaye tam ñi nga xam ne tam dañu doon manifester di taal ay këri jàmbur ak ay alale jàmbur wàcc nañ yoon kon manifestation boo xam ne pacifique la di wane sa naqar di wane sa sa mer di ko ñaxtu waaye nag def ko ci jàmm ak salaam di tudd yàlla. lu te ñuy tudd yàlla di wax allahu akbar lu tee ñuy tudd yàlla di mm, wax laa ilaha illallah lu tee ñuy tudd yàlla di wax ñoo lànk ñoo bañ lu te ñuy wax loo xam ne si ñëpp dañuy xam ne ñii am am nañ aw naqar di ko def ci jàmm ak salaam mbooloo mu ànd mat million wala ñaari million kenn mënu koo dékku kenn mënu koo dékku waaw régime benn mënu koo dékku kon nag manifestation yoo xam ne dafa ànd ak jàmm ak salaam régime mënu koo dékku Euh, mbolo mu and di manifeste ci jamm ak salam lañ bëgg buñ ca dogo nguur day wacc fekk ci len kon non lañ ko waroon doxale waye nak euh, ñi ras ñi gamu ak ñi ras dem ñoo bokul mbolo mo gis rek am ñu rax ci biir ñoo xamna ne def nak sudul non kon nak ñi ci seen bakkan dess ñi ngi leen di jaale seen bokk di ñaan suñu borom mu jéggal leen ñi nga xam ñoo leen ray nañu def enquête ba xam kan ak kan la japp leen tegg leen ci yoon ki nga xam ne nag amaana da doon défendre bakkanam moo tax mu rey kooku moom ñooy enquête xam nañu ko danañ ko xam waaye ki nga xam ne moom dafa rey rek ngir bëgg a rey euh, kooku tam ñuy enquête dañ koy xam kon ñi ci faatu daal yàlla na yàlla yërëm ñi ci yàqule tam ñu ngi leen di masawu te yàlla dogal na euh, ki jiite réew mi nee na danañ jox ndàmpaay ñi ci yàqule danañ jox ndàmpaay ñi euh, njaboot yi nga xam ne dañ ci ñàkk seen i doom loolu tam dañ koy rafetlu. am na itam ay ay ay ay doomu aadama yoo xam ne ay jaambur yàlla lañ yoo xam ne nee ñu danañ def ay téléthon ngir dajale alal joo xam ne su dajee dañuy seet ñi nga xam ne dañoo am ay gaañukaay ñu faj leen seet ñi faatu li ñu mën leen a jaale loolu lépp lu baax la kon yàlla na ko yàlla mottali waaye lii daal euh, euh, nañu xam ne ngelaw loo xam dafay jaar kenn kenn ñaanu ko woon yàlla sunu borom. waaye nag damay wax toujours ne asgor moom su ma jotee dafa war a bañ waa nangu nooteel asgor asgor waru koo def waaye na suy bañ nag na ko def ci yiw buy bañ na ko def ci njekk su ko defee lamuy muy saafara mën na koo mën na koo saafara kon nag suñu borom mi nga xam ne moo moo moo moo nu ko nattoo jeexal na ko ci jàmm na kilifa yi di gën di daje di waxtaan ndax guerre sax ñi koy def balaa guerre baa jeex dañuy toog ci taabal waxtaan kon nag bu njëkkee woon toog ci taabal waxtaan duñu agsi fii ñi nga xam ne tam ñooy àtte euh, bañ a jalgati yoon ndax bu ñu demee ba kenn wóolutul àttekat boo waxee ñu ne duñu àtte dëgg loolu tam dañ leen a ngalaap dañ leen a ngalaap kenn wóor wóolootul takk der dañ leen a ngalaap loolu lépp day yu ñu war a jubbanti dañ ko war a jubbanti dañoo war a jubbanti ba nga xam ne takk buy def liggéeyam da koy def ak xel mu dal. yow mi ñuy ki yoon sam xel day dal buñ lay àtte kii àtte da koy def ci xel mu daal yow sam nga xam ne dañ laa war a tekki dëgg nga dem ci yoon a xel mu dal waaye buñ demee ba kenn wóolootul kenn kenn doyalootul kenn loolu réew mu tas la réew mu tas la kon nag kenn ku nekk xam li nga xam ne mooy warugaram mu yem ca waaw takk der xam warugaram di ko def euh, juge xam warugaram di ko def euh, askan wi tam xam seen warugar kenn ko nekk di góor góorgóorlu état tam xam li nga xam ne moom la moom mooy dafa war a yërëm bindee fi dafa war a sàmm njaboot gi ndax moo doon jaboote bu kenn ku nekk daal yéeme ca la nga xam ne mooy waru garam kon jàmm dana ne ñooy kon daal ñu ngi li nga xam ne moo fi jaar yàlla mi nga xam ne moo ñu ko natoo nag te jeexal na ko yàlla fi yàlla yàlla yàlla na dem ba faw yàlla bu bu yàlla mu fi amati ndax Sénégal dafa doon réew mu ñu naw réew moo xam ne ñëpp dañ koo teg bët di ko xool waa def ko muy référence ci ci ci euh, Afrique kon nak buñu démé ba bëgg a roy réew yi nga xamné ñoo leen rawoon ñu bëgg wacc ba tollok ñom loolu mom dara jëru ko ñakoy koy de ko metterlu yalla na yalla andi jamm ci réew mi ndax nit lu mëna am ci aduna jamm mo gën ci mom fi ci aduna jamm mo moo fi gën biir bàmmeel jamm rek lañ fay ñaan yàlla alaxira jamm lañ fay ñaan wa salaamu alayya yawma ma wa yawma ma wa yawma ma hayyan kon ñetti étape yi nga xamne mom lañuy jaar fu ci nek jamm rek mo fa gën yalla nañu ko yàlla defal alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallah jërëjëf sëñ Sidi Mokhtar kaddu yaakaar naa <laughs> doo xam yeen kaddu mo ci gëna ki yi jëk ak yi mujj yépp baax yalla na la yàlla fayal bopam te wax de yalla yeen seen kaddu dafa am lu muy jariñ askan wi te japp na ne eh, ni njitu mi waxe ne degg na yaakaar ni war nay déglu askan wi ak boromi xam-xam. borom xam-xam seetloo yi am yëpp ñàkk déglu feeñ na ci ñàkk déglu saw askan waaye nag yàlla na ko yàlla jëlee daal ba lii kenn dootu ko déggati ci réew mi yàlla yàlla defar xale yi nga xam ne ñooy jóg di wuti dara lu ñu def ci seen i kii yàlla na leen yàlla dabak wërsëg te yàlla xiirtal leen ci yoonu siraatal mustaqim ñu ngi sant baay Ndam bu baax nag di ko ñaanal fan wu gudd lool ak wér di ñaanal njabootuk soxna Mbène bu baax a baax di ñaan yalla na yàlla liñ fi jàng ci alxuraan ak kamil yalla nako yàlla séddale soxna Mbène ak Serigne lok mbollem ay mbokam ak julit yëpp te lolit ñi dundu jarignu ci bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah